Modou Lo ak ki nga xamante ni mooy Ama Baldé taxaw na soq gàmm gay taxaw na bari na yeneen combat yoo xam ni taxaw nañ léegi combat yooyu li ma ci bëgg a gis mooy dinañ ko bëre ren wala combat yi ren Covid bi day continuer ba saison làmb du dox wala Covid bi dina fi jógee làmb continuer wala bu ñu bëree ñoom ñoom ñooñu ñëpp ku ci nekk bu bëree lan nga ci gis ci combat yooyu wala gisagoo ci dara. waaw làmb ji sant gis nañ ci. Hmm. waaw. gis dañ ne combat ëmm kii ëmm seen Lac de Guiers. Hmm. bu fekkee bëree nañ ko ren. bu fekkee bëree nañ ko ren incha allah. deux mille vingt et un deux mille seen hmm. day daanaan Lac de Guiers 2. ëmm seen da koy daan. waaw parce que Lac daal loo xamante ni moom moo koy yàqal mooy wax làmmeñ moom moo te moom mooy yàqal boppam. Hmm. waaw te su bëree si atum ren ji dañ koy daanaan incha allah. Balla Gaye Bombardier. Balla Gaye day daan Bombardier. nu ngi koy daanee da koy dóor mu daanu. ah combat boobu daal gis naa daal. ah sëñ bi yow est-ce que nekkul da ngay rek. mais mm-hmm. sëriñ bi kat da nga naan diw nii la koy daane nu mu koy daane. combat boobu daal dina metti dina am dóorante. Mm-hmm. waaw dina am songante. deret dina dina ci am. deret moom du ci am mais dina am dóorante songante dina am. Mm. jaxasoo moom dina am combat bu neex lay doon moom combat boobu ak mm. combat Ama Baldé Modou mm. ñaari combat yooyu ñooy yi gën Ama Balde Modou nu muy demee. combat Ama Balde Modou Lo combat boobu Modou day daan Ama Balde. Hmm. incha allah nu mu koy daanee. jël bu rafet. dañuy songo mu nax ko daan ko. ah bi loolu yéeme na di. Mhm, maa la wax li soq gàmmu gay. soq gàmmu gay ah, gàmmu gay day daan soq. nu mu koy daanee. combat boobu moom combat kii rek. combat la moom. yii rek foo nii dóor yi dóor dóor rek. mu dem. Adama Diouf wulli combat bu bu bu neex boo xamante ne àdduna bépp koy xaar Adama juuf mbëru séeréer wulli wulli waat mbëru bawol bawol bi. waaw ah, wulli ak kan. Adama Diouf ak Adama Diouf. Hmm. Adama Diouf moom day daan wulli. <laughs> sëñ bi déet waay wulli sama xarit. waaw wulli de dañ koy daan. parce que dañ koy dañ dóor bu daan wala dañ koy ko dóor dinañ ko daaneel. moom wulli bu ñëwoon ci doo ci am pexe pour mu da mu changer combat. ah man na nekk kii mooy borom sant yàlla bu ñëwoon man nañ ko samp ci kàttanu yàlla day jël làmb jo làmb dañ koy dippan lépp ah, loolu ma hmm. waaw parce que yooyu làmb mooy mbiru jinne foofu la jinne nekk nag hmm. boo bëggee gis ay jinne dëgg hmm. dama ci làmb mais comme sëriñ li ñuy wax am na ay nangami jinne jinne boo ko bëggee jinne yu bari dama ci làmb